ñu dem ci bun jonn mi nga xam ne daal Assane nee na balaa Sénégal di développé faaw mu am xaalisu boppam mu bi nga xam ne daal dañ koy am ay jamono nag bi ko waxee ñu bare bare dal nañ ci kawam ba sax ci la tombé woon ak Icon City ñëw ba ñu ni waa lu tax Icon am dëkk boppam ak mu boppam ak ay takk deri boppam euh, Ousmane Sonko def lii ci penc mi mu nekk ab euh, débat tey nag bun jonn ñëwaat na confirmer ko nee na balaa ñoo développé faaw ñu am suñu xaalisi bopp. Ah, wax dëgg yàlla loolu mu wax lu rafet la. balaa Sénégal de il faut ñu moom suñu bopp waaw moom suñu bopp de mooy tax ñu mën a moom suñu xaalisu bopp waaw loolu moom lu rafet la incha allah nañ si góorgóorlu ñoom liggéey ci rek bañ moom suñu bopp joxe hélas. nu may joxe hélas. lan lu may joxe hélas. da nga koy laaj si buñ jonn bi. déedéet yow laa laaj. wax naa ba pare. yow loo may nañ góor góorgóorlu bañ moom suñu bopp ñun Sénégal moom boppam ba pare. waaw doog a moom xaalis. na man xam nga moom wax na loolu li nga wax ni la wax. Hmm. wax ji laa la jàngat lu moom li rek yow nga waxaat. waaw dama ne ko nañ si góor nañ si góorgóorlu. laa noonu nuñ si góorgóorlu. xam nga moom xaalis la wax ñu moom ko. Hmm. man nag dama fee bàyyi xaalis moom réew mi ba pare. doog ko dem si xaalis. ñun moom ñu suñ bopp. waaw bu buñ moomee suñu bopp. ba yilif suñu bopp ñu suñu bopp. Ah, yaay seet nag ba xam. non duma seet dama la laaj non joxe hélas bu ñëwee. mënoo fi nekk meilleur ma laaj la nga may laaj. waaw léegi boo joxee hélas bu mu ko tojee da nga xam. ba xam ñun ñoom toj. Ah. mais yow tojal. man toj naa ba noppi. tojoo dara. tey nga dama laa laaj. yow li bon li bun jonn wax nga wax de. Hmm? li bun jonn li bun jonn xaalis la wax man nag réew mi laa wax. waaw réew mi moom ba noppi. moomuñu suñu bopp. ñun ñun France ñu yore. France moo ñu yore. nu ñu yore. France ñu yilif France moo moo ñu yilif kay. France moo ñu ah, ñun ñu am suñu président bopp. Ah. suñu ay gouverneur ah. am suñuy préfet. Hmm? mais dafa am réew yoo xam ne français leen yilif am réew yoo xam ne ñii leen yilif am leen yilif. ñun ku ñu yilif. France. France ku ko yilif. France xaw ma ku ko yilif mais xam naa ne si ñun moom bokk nañ si réew yi France yilif. d'accord hmm. mooy suñu kilifa daal. waaw. ok. Alaaji. Hmm. noo gisee propos buñ joon waa xam nga boo seetee son bu ku ci mel ni buñ jonn ak euh, ñenn ñu bari ñoo xamante ni bi ñu ngi ci système bi boo seetee dafa mel ni dafa am loo xamante ni bi man moom laa gis ni moo nekk seen jafe-jafe mooy usmaan Sonko li ñu ko toppee la la man jàpp naa ni waxtaan njëkkoon na am boo xam ni teg nañ kaawu Ousmane Sonko ci pénc bi mhm. ñu ne li xew nii lan moo tax mu xew jàpp naa ni li tax bi ñu waxee loolu fi ñu conclure mooy Ousmane Sonko dafa indi discours bu différent par rapport ak ñun li ñuy discours pendant des années dama lay wax ne la bon nii laa jàpp ni noonu la yëf yi demee mhm. ñu ne ban discours ñu dafa yor discours bu niveau euh, ci wàllu économie ci wàllu doxalinum réew discours boobu nag mooy discours panafricaniste yi mu yore ñun ñi nga xamante ne bi ñun ñooy système bi yoruñu ko ñu ne léegi nag il faut que ñu fexe di wax ay waxam que ni buñ jon kenn la mm-hmm. mais boo naa génnaatee am na ñoo xamante ni ñu ngi woon ci biir système bi ngànk ay kii mais boo déggee seen discours ñoom it discours Ousmane Sonko lañ commencé discours maanaam dañoo ñëw séddoo discours Ousmane Sonko léegi ci pénc bi. waaw ku ne di wax. waaw léegi nag mama boobu ñoom ñëpp ñu moom ñu ngi ko téye. léegi seeni wax di wëndeelu. Mm-hmm. maanaam ku ci nekk jël lenn ci wax ji di ko wax. Mm-hmm. ñu déggee buñ joon wax fii. dégg Khalifa Sall wax fee mm-hmm. nga dégg ñeneen wax mais ñëpp rek boo delluwaatee day fekk ni wax la joo xamante ni Ousmane Sonko wax na ko ba pare mm-hmm. moo tax ñoom fi ñu xamee ni lii war sa dox mm-hmm. mooy biñ ko dalee def ba nëgëni saa yuñ ko defee lii nga wax moom mooy ñëwaat maanaam tout Ousmane Sonko mooy dellu si maanaam jàppoon nañ ni peut-être bu ñu ko tegee suul ko bu defee ñu ah moom kese kat waxu fi lii comprendre nga. si moom kese kat waxu fi parce que diw sax loolu la wax. ñu ne moom kese kat waxu fi lii gis nga maa ngi seetaan keroog benn discours Khalifa Sall boo xam ne waa ji dafa jël discours Khalifa Sall bi mais di ko tegal di la tegal Ousmane Sonko maanaam lépp mooy émission bi mu def RTS 2S. waaw lépp loo xamante ni Khalifa wax na ko Ousmane ko waxoon na ko. Mhm. comprendre nga. si maanaam ñoom jamono ji nga xam ni dañu jàppoon ni sénégalais yi. Euh, en politique soxlawul nga leen di wax sax wax ju leer mais ñëwal rek ñu tëgg way way ñu fecc xumbal bu ko defee nga daal di ñëw ne ku ngeen àndal ñu ne diw way way nga yëkkati loxo ñu ne way yaa fi man ñii ñu jox leen xaalis ñii jox leen kii ñu ne moo fi man voté leen ko jeex na jàppoon nañ ñu lool pendant ce temps nag waa ji moom dafa ñëw préféré di wax ak nit ñi mhm. di leen wax wax ju ñu mën a dégg ne leen bu dee xaalis joxewu ma dërëm mhm. parce que lii ñuy def dañoo war a ànd ñun ak yéen ñu def ko tegal leen ay discours gëmloo leen benn mbir mhm. ñooñu ñi ànd ak moom dañ koo déglu dañ koo déglu ba dégg ko mhm. moo tax pour nga demaat jëli ay waxam jàpp ni mën nga cee yéegee dangay ngay hmm. nasaxal sa bopp rek parce que bokkee ay waxam rek ngay yëkkatiwaat dëggal ni li mu doon wax dëgg la te pourtant bi mu koy wax ci jamono yéen a ngi doon wër ci plateau yi ak seeni ñooñ di ko critiquer naan li muy wax ni baaxut mhm. li muy wax ni nan lañ ko mënee loolu mooy yi nga xam ne mooy discours yi ñu doon def ci plateau yi léegi nag bi nga xam ne mu ne nañ ko nga ne nañ daw nag jëli ji discours ba xam naa ne am na ñoo xam sax dem nañ jënd ji livre ba mhm. solution mhm. toog di xool fan la doon wax lan la doon def ngir ñu ñëw jaar yow xanaa ko da nga alaal commentaire yi ah. ñu ne Xalifa livre Sonko bi la jël sottiwaat ko di ko lire <laughs> gars yi da ngeen mën a tooñjee <laughs> bàyyi leen xalifa xalifa borom xam-xam <laughs> nga loolu mooy li nga xamante ni bi mooy problème hmm. attention de wax parce que gis nga Sonko ku def lu yàgg ci gëstu Sénégal la. xam jàngoroy Sénégal yi fi mu nekk mu jël temps am parce que nekkul livre taf-taf quoi parce que livre am bi c'est bien préparé. Mhm. liggéey na ko. te jàpp naa ni toog naa ñoo ay boroomi xam-xam ñu toog càmbar ko parce que ñii li ñuy def ni boo gisee li ñuy def du ay caaxam ay boroom xam-xam ñoom ñoo ci ne. Mhm. moo tax bi ñu ñëwee sénégalais yi accroché wu ci ñoom moo tax mbir mi dem ba politiciens yi ñoom xamatuñ lii lan la xam nga lu xamatuñ lii lan la. Mhm. parce que dañ fee mës ta indi lu mel nii te mësuñu yaakaar ni peuple bu mel nii Sénégal mel nañ nii. Mhm. Sénégal nii mu mel nii ci fa ci jamono yii. ci at yi ñetti at yi ñu génn. politiciens yi suñu yaakaar ni sénégalais yi mën nañoo mel nii tey nag ñu gis ni sénégalais yi ndekete mel nañ ñi moo tax ñu am problème. léegi bi ko buñ joon waxee lu tax topp ñu ko. non non kon buñ kenn mënu ko topp parce que dafa wax waxi waaw mais xam nga. mais wax ji wax ji jariñ Sénégal la rek. non ak fu mu mën a jógee. waaw mais wax ji. Hmm. wax juy dëggal du kese wax juy jëriñ. wax juy dëggal waxu Ousmane Sonko maanaam lii mu wax nii. dafa confirmer ni li Sonko doon wax dëgg la maanaam loolu luy gën a yëkkati Sonko la rek moom nag mën nañ ko am benn mérite ñu nangu ni nangu na dëgg parce que nangu dëgg tamit wax ko ci penc mi yombul rawatina nga nekkoon ci beneen camp bi donc lu fait que mu nangu dëgg loolu lu baax la. Mm-hmm. nangu na ni li Ousmane Sonko doon wax démb ak bërki démb ndekete dëgg la. d'accord voilà jërëjëf Alaaji